ñu daje mooy naqaru xol parce que Pikine waaye ñun faruñu fenn xam nga kuñ faral tey tey Pikine lañ faral parce que Macky Sall ba mu fiy mujj moom dafa ne Pikine sagal geen ma mais boobu ba léegi gisuñu dara moom ci lum ñu sagal ñun te gortu yooyu gox yëpp da koo perte ñu falaat ki nga xamante ni moom la fi teg muy Timbo mais comme ñu koy waxee ñun jeunesse Pikine dañoo son lu tax ñu sonn dañoo soxla xëy yi nga xam ne da ko fee diggee woon tey xëy bu ñëwee ci politiciens yi lay yem wàccul ci ci génération bi kon tey ji génération bi taxaw fii ni nga xamante ne dañ fi taxaw ak suñuy mag ak suñuy frère dañoo soxla ay xëy parce que chômeur man mii di wax chômeur laa te ñu fi taxaw ñëpp ay chômeur lay comme niñ koy waxee dañoo soxla xëy te xëyuñ soxla tey jii nii nekkul ne tey jii nii ñu nekk ci doomu doomu président wala doomu ministre yi ñoo war a nekk tey jii nii di nekk ñi nga xam ne ñoo war a am ay ndombay leneen lu ñuy wax Pikine dara changé wu fii 79 ba léegi ñu deewoon sax bu ñu yeewoo dañuy ñibbi seen kër xoola taw tay bii ni boo duggee ginnaaw raay ñu ngi nuyu suñu frères yi di leen masawu pont bi nga xamante ni terre bi tey moo tax semence yi bëri am tey jii ni fii nii tey eh, président da nga war a wàcc ci terrain bi façon politique bi nañ ko bàyyi nit ñi comme niñ koy waxee kenn mënatu leen jënd kenn mënatu leen jox luñ mënta am loo war a am du nit moo la koy may da nga koy liggéey ngir am ko te loxo buy taalal bu yàggee nga séngéem te loxo buy taalal boobu jeunes yi dañoo assez Pikine nag maa ngi dégg ñu naan jii nii Pikinois yi ñu fi nekk rek ñu gérer kenn gérer wuñu parce que politiciens yi boo waxee ñu naan no Pikine du am problème monsieur le président ñu ngi lay lancer un message bref pare nañ pour lépp pour teg suñu bakkan pour Pikine boo déggee ma ne pour teg suñu bakkan pour Pikine changer gox yi fi nekk tey jii nii tali benn changé wu fii waay parcelle ñoom gënuñu ñu ñu tey luñ def ci ñun lañ ko gisee kon tey suñ demee bañ ñu ñuy gas ko suulal sax ñun gisuñu ko fii Pikine kon tey président de la république yow la ñuy waxal wàccal ci terrain bi te xam ne gars li ñu lay def ay dóor la gars yi dañ lay nax liggéeyuñ la te dañoo bëgg tey ji nga ñëw ci jeunesse bu conscient bi te ñun conscient nañ tey noon nañ fi tey jii nii di taal ay xeer di sànni ay pono di taal ay pono duñ ko def mais dañuy wax pour première fois avertissement mm-hmm. alt la ñuy def ñun Pikine nag élection yi le 31 la ñun la 28 soo ñu gisul dinañ génn wax ak suñu mbokk frère yi ñu boycott élection yi man la jokkool ak ñu fi nekk ñëpp parce que arène national la doon am maa waxoon ak moom xamal ne ko Pikine soixante-dix-neuf ba léegi ñi deewoon bu ñu leen yee dañuy ñibbi seen kër Pikine dara changé wu fii dara changé wu fi te code électoral bi fi nekk ñu nekkatuñu ay booy xam nañ tey jii ni kii gañ Sénégal kii gañ Pikine gañ les élections te moom tey war na am benn firne bu mu am bu ndaw rek élection yi dafa perte gox yëpp gañe Pikine dafa gagné Pikine kon tey gagné bi mu gagné Pikine tey war nañoo delloo ñun jeunesse bi loolu noonu parce que suñu carte d'identité ñu am ñun ñoo ko utali suñ bopp kenn utaluñ ko te tey jii nii lan lañ ko def moo tax ñu mérito tey taxaw fii nii di di ut liggéey ah lan moo tax tey mënuñoo am li am géejawaay parce que Alioune saal moo fo nekkoon maire tey Timbo bi nekk maire Pikine bi sa nijaay la kon tey jii moom nan liggéey lañ ko sant ak maire fi nekk yëpp tey comme niñ koy waxee lenn la ñuy wax Pikine waay nee nañ Pikine waay nee nañ changement day am par force te xoolal yemul ci sax mille vingt 2024 horizon 2032 lañ jëm keneen ku fi ñëw sax waa Pikine pare nañ pour seen gox changer par force inondation yi mënu ta weesu tey tunnel bii nii boo fi rombee léegi léegi amul kenn ku fa jaar daaw am nañ fa benn moor ah tey jii nii dugal dugal dugal dugal Waxinaan dugal dugal ma dugal dugal manko dugal armère yi ba pare ñu ngi lay lancer benn message suñu armée yi nga xamante ni boobu ba léegi suñu jeune frères yi def nañ combat bi boobu ba kenn waxagu ci te boobu ba léegi ñu ngi toog teg mhm. na technopole ñun dañ fa soxla camp sapeur mhm. suñu préfet bi nekk tey jii ni géejuwaay nañ ko indi Pikine ñun dañoo bëgg syndicat bi suñuy mbokk ñoo fi nekk di liggéey mais defar bi nañ ko defar ñoom ñu dugg ci biir syndicat bi liggéey parce que tamit bëgguñu ñu jëlee leen fi mais tey tamit mën na organiser wu bañ delloo leen ci biir syndicat parce que fii ñu lal tali la te ñun kon mënuñoo combattre ne tey dañu combattre chômeur bëgg ñu jëlee leen fi ñuy dellu ci chômeur nay leen dugalaat biir syndicat recadré ko defar ko ndaw yi ni comme niñ koy waxee vingt sept entreprise ñoo am diggante croisement Cambérène ba Kër Massar benn jeune u Pikine liggéeyu ci ah, marché poisson bu soobee yàlla lenn lañ wax bu ko Pikine nekkul ñun dinañ fa dem saccager ko parce que Pikinois yi li ñuy wax lenn la ñuy wax li ñuy wax lenn la li ñuy wax lenn la ñaanuñu kenn mais Pikinois waay comme boobu ba léegi yéen ngi dañoo toog benn place dinañ jóg foqati li ñu yor moom par force comme niñ koy waxee amul lu ñu leen ñuy ñaan parce que comme niñ koy waxee nit ki boo nee tekk def tekk def tekk ba tey jii nii suñuy doom màgg talatuñu tekk instant yi nii dañuy sacrifier wu pour suñuy avenir doom